bu ñuy wax fora yaakaar naa sàmm moo tax ñuy wax fora donc buñ koy wax bu ñuy wax balaa muy yegg fii dafa am lu bëri li nga xam ne suñu borom wërsëgal nañu ko mooy ay population yi nga xam ne dañ leen xam ràññee leen ñu nekk ay sàmmkat. secteur la bu nga xam ne boo ci tegee sa loxo bu sobee yàlla day dem mais li manqué toujours mooy li may wax. mooy réew mi boo koy liggéeyal xoolal fi sénégalais yi di yeewu nga dimbali leen nga gunge leen nga organiser leen. ñu commencé woon ci nag ay réformes yu am solo ndax gëm naa ni ranch de Dolly liñ ci xam am na solo am na njëriñ ñu waroon nag ñeme xool naka lañ koy lawalee ci biir réew mi ndax loolu wàññi na lu bëri ci wàllu divagation des animaux. wàññi tamit ci conflit yi nga xam ne dana am diggante suñu ay mbokk béykat ak suñu ay mbokk sàmmkat fora bi balaa may judd mu ngi fi woon dara changé wu fa parce que nag wóor na ma ne ñu fiy liggéeyee ay borom kër yu mag lañu ay kilifa lañu boo demoon xëy na fi ñu dëkk di nga xam ni kat ñii moom seen métier yor nañ ci seen bopp bi am ci ay étage wala ay këri kër mais conditions yi ñuy liggéeyee du dëgg du yoon condition yooyu ngeen di gis ci secteur yu bëri commercant yi loolu la ñuy dund ci marché yi artisan yi loolu la ñuy dund ci atelier yi secteur boo jël dafa am effort yu bëri yi nga xam ne état bi war na ko def pour dëkkuwaay yi ak bërëb yi ñuy liggéeyee mu nekk ay bërëb yu moderne yooyu mun accueillir nit ñi dans leur dignité dafa am solo beneen bi tamit ngeen di am ay point de ralliement yii tax ba ku jóge woon Fuuta di indi ay jur mu nekk foofu pour un séjour en de bonnes condition ci suñu ay bétail ba moo loolu bés bu ngeen ko soxlaa am na ñi nga xam ne sax bu ñu soxlaa seen bopp donc loolu yëpp ay matuwaay la yu war a jël Sénégal ngay toog ba deux mille vingt quatre ñuy wax ay waxu vol de bétail loolu dadul yoon amul benn dalal booy dem nga fekk condition yu normal yooyu liggéeyee bu nawet jotee sax day day doy waar parce que doo xam sax noo fay nekkee ah, ah. donc loolu engagement la yi nga xam ne jël nañ ko ñu gëstul ko suñu bopp gëstu ci wàllu amélioration de vos races animales i réew mee ñu ñor réew mi nag jigéen ñi sonn nañ réew mi ndaw ñi sonn nañ ndax nañ leen ba léegi ils les premiers révoltés de notre pays ndax ñoom ñoo nangu tayale seen bakkan di dem bitim réew ak lu leen ci fekk ci yoon bi ñu jël ko te loolu nag du dëgg du yoon loolu mooy li nga xam ne war nañ ko saafara